ci dajale jox la pouvoir pouvoir boobu ku la neex tëj ku la neex nga jàpp ak num la neexee xam ngeen ne li Macky Sall di def du dëgg guddi du dëgg bëccëg nañ ko ko wax ca kaw billaahi suñ ko ko waxul dañ ko rëccu maa waxoon juróomi at maa ko tekki sénégalais yi lu leen neex xam naa leen gëmuñu dara il faut que ñu weddi ko lépp lu waxoon teppi na ko maa waxoon ne constitution bi kenn dëttu ko laal indiwaat beneen constitution boo xam ne delluwuñ ci référendum delluwuñu fenn lu mooy assemblée boo xam ne am nga fa majorité loo bëgg mu defal la li Macky Sall la di def kar la moo waxoon juróomi at wax ko ca France wax ko fu nekk mu ne mujj gi mu ne constitution bi mayu ko te boobu nga xamoon ne constitution bi mayu la ko xam nga lii mooy waxu caaxaan dëgg dëgg dëgg ak yëpp sénégalais yi taxaw constitution yow yaa ne woon kenn du ko laal keroog man ak moom ñoo taxaw ci kanam place de l'Indépendance ak Moustapha Niass ak Tanor ca suba ba le 23 juin man maa fa njëkk man ak ñëpp ñu taxawandoo ñoom ne leen lii du fi am taxaw di ci xeex suba ba ngoon nga taxawaat tey ne danaa tripoter loolu nga xam ne mooy constitution kon daf ñoo yàpp lii moo taxoon ñu jëlee fi Abdoulaye Wade mooy taxawoon ne danaa defaat constitution bi noo xam ne sama doom dana mën a toog ñu bañal ko ko ba ci suuf pataaral gi nga xamante ni jamono ji kilifa yépp ñu ngi ko def métti loolu kile di Sidi Lamine Niass ndax gis na ni xëy na yenn ñuy defal kër diine yi lañu ñu jëndee seeni muut ba tax kenn nangu ci yëy yàb bi waaye nee na dëgg kese ak ngëm ñoom ñoo mun loolu waaye ñépp a ngi noppi boo waxee ñu ne lim def ci kër sëriñ si jumaa yi kër yi waaye billaahi na daaj mboolem mboolam jumaa yeeg kër yi te bàyyee ñu gëm yàlla bàyyi ñu wax dëgg ana lan mooy tabax ana lan mooy tabax ana mooy infrastructure boo xamee ne kii lu mu suba ba ngoon su ñëwee jaar faneen dama ne billaahi wallaahi ku ci noppi danga nga am lanteeg sa borom danga am lanteeg ñoñu réew mi xeeb nañ niti diine yi ci seen noppi xeeb nañu ñëpp ci seen noppi réew mi yëpp nag ñu daan yëngatu di génn di manifester léegi lépp a ngi ne tekk ñëpp a ngi ne tekk